jërëjëf Alaaji jërëjëf euh, Baye Assane Mesere ñu dem ci euh, Bougane géey Dany le 2 avril bi ñu jëm nee na président Macky Sall dootul nekk président bu senegal euh, donte ni yokkal nañ ko mu dem ba avril lu tega tega ko si lëf nee na daal moom na xam ni 2 avril bi ñu jëm bu yeboo na xam ni nekkatul président bu Sénégal moom Bougane Gueye njiital gëm sa bopp Assane. Ah, waaw président Macky Sall kay fi mu nekk nii son yi ba ñëpp dañoo war a maase si loolu yi xam nañ ko gis nañ ko est-ce que est-ce que sax yeneen réew yi fi mu ne nii pare nañ pour di signé si dara. signé mooy lan. moom est-ce que bu signé dara dana jàll. mooy président réew mi kay. Hmm? matal na fi nii dafa téye gun nee na problème dafa am. dafa téye gun réew mi pour ñu régler problème bi. kuy régler problème nag ndax nit dina ñëw di. signé moom dara mais moo toog ci toogu bi. war naa a non non dafa téye gun pour régler ndax dana signéete kenn dara ndax it est-ce que dina signéete ay loi yu jàll. Hmm. voilà léegi loolu lépp lu ñu war a xool la léegi daal bu fekkee hmm, jot na. Hmm. li koy waral mooy ni ñëpp wàcc ci télé bi campagne. campagne mënatul nekk. mën naa nekk décret bi génn décret bi yàq bi. publier nañ ko alaaji mën na la ko wan. conseil constitutionnel. non non non décret bu décret bi bi bi bi Amadou. signé bi Amadou signé pour ñu dàq élection yi. boobu génn mais conseil constitutionnel dafa woo candidat yi. mun leen bu minuit jotee am ngeen droit campagne ba heure sàngam minuit amatu leen droit campagne jox leen kayit yi léegi nag ñoom nañ démarrer seen i campagne bu ñu demee ba jotaat conseil constitutionnel joxaat leen kayit ñu doog a mais fekk jotuñu kayit dañoo war a campagne si télé bi mais man d'après samay gëstu hmm. comme ministre bi signé na décret bi hmm. amatuñu droit mais les conseil constitutionnel moo leen joxoon conseil constitutionnel na génnewaat ab bu leen di xamal ne arrêté naa campagne mais fekk ko nañu campagne ah ndax ministir bi campagne loogu leen woon conseil constitutionnel moo leen campagne loo woon. comme que terewu leen ko nag nañu campagne ba mu tere leen ko ñoom ñëpp nañu àndandoo wàcc ci terrain bi campagne. d'accord waaw campagne daal laa soxla fi mu toll nii. campagne waaw campagne karawaan wàcc ci terrain bi campagne. Ah, hmm. campagne te buñ ñu gaañ. Hmm. alaaji Bougane de kaddu yooyu la yëkkati muy le 2 avril daal fàttali na ko njiitu réew mi wane ni daal ñu ngi naan yokkalaat nañ ko puusal nañ ko xëccal nañ ko le 2 avril gii ñu jëm bu ca nekkee nekkatul président bu Sénégal. xam na ko. xam na ni nguuram jeex na. Mhm. le 2 avril. Mhm. moo tax mu doon voté la muy voté ci assemblée. Mhm. xam nga gis nga dinaa la xamal leen ci àddina. gis nga bu mbir jeexee. li gën mooy nga nangu ni jeex na. parce que loolu moo lay yëkkati. moo lay euh, delloo li nga xam ne moom nga mm-hmm. donc gis nga même boo xuusee mm-hmm. ñii ànd ak yow sax gëmatuñ la mm-hmm. waaw <coughs> dañuy ñëw rek ngir euh, lekk la nga xam ne moom maanaam liggéey sax dootu fa am <coughs> parce que dafa pare ku ne day profité rek waaw te yow ci sa jëmmi bopp tey jii président Macky Sall nga ne ko légitimo poobu sax yow nga ko koy wax nii. Hmm. mën na ko bañ a déranger de. Ah. mën na ko bañ a déranger fi mu toll nii. waaw mais boo demee ba yow sa jëmmi bopp nga yëg ni léegi nag. ah légitimo. légitimo. ah nii du garaaw. non nii garaaw parce que ba léegi légitime na parce que ba léegi war na jiite réew mi bala le 2 avril. Mm-hmm. bon am na loolu quoi maanaam faloon nañ ko ba foofu. Mm-hmm. mais après. maanaam dootul neex yow ci sa jëmmi bopp parce que da ngay yëg ni doonatoo toog parce que sunu borom rocc na ko lii ñu lay defal maanaam du dugg parce que say kii moo ko du moo ko du nangu yow sa jëmmi bopp da ngay yëg ni jiiteetoo nit ñi xam nga njiit bu njiit da ngay yëg ni yaa jiite nit ñi parce que nit ñi nangul nañ la ne yaa leen jiite parce que ñooñu rawati loolu mooy loolu mooy kii force démocratie tey jii buñ la falee hmm. nga am majorité da nga yëg ni yow yaay président. Mhm. sénégalais yi fal nañ la. Mhm. mais gis nga lu ca tollantiku loo xam ne nit ñi joxuñu la ko yow ci sa jëmmi bopp même bu la ko nit ñi daal monsieur le président da ngay yëg ni yow doo ko. te boobu bi gën a garaaw. dégg naa la. comprendre waaw maanaam bu ca doolee benn fat rek leer na ko ni doonatu ko. Mhm. même bu ko fekkante nit ñaa ngi ko koy wax. xam nañu ko maanaam la woon dafa mel dañ ko dañ ko rocci daal. waaw dañ day rocceeku day dañ ci yow. kon xam bu dematee si lay toog. màggal ci kaw lay toog. <laughs> ah um, fekk nañ mu jeexal. waaw mais xam nga li am solo li am solo rek mooy yëg nit ki ci jëmmi boppam moom. parce que loolu mooy li nga xamante ni mooy lépp tey jii maanaam tey nit ñi ni ñu la doon xoolee. Mm-hmm. képp koo xamante ni kii moom xam na yëf yi tam mi ngi dox républicain di dox ci loi. Mm-hmm. maanaam gëdd bi mu la joxoon mënatu la ko jox. parce que day xam ni du doonatul yow quoi. Mm-hmm. parce que li la fi teg léegi nekkatut li nga xamante bi askan wi ñoom noo dajaloo jox la ko. Hmm. Hmm. mais lii yow yaa ko jox sa bopp. Ah, li nga jox sa bopp nag mën nga koo jox sa bopp de. Hmm. waaye est nit ñi ñoom ci seen jëmmi bopp jox nañ la ko. donc loolu di rusiku di dañ. te loolu noonu lay dañee ci Sénégal yëpp après le deux. Euh, day yëg ne woyof na ah da ngay yëg ne woyof ah, parce que fii ba le deux la waaye nag après moom jeex na. doonatu ko ko quoi. ku taseeg moom daanaka sax jur ngay wàcc télé bi. <laughs> bu nee laa nii nga ni nii. xam dëgg de li ngay li ngay li ngay wax ni moom li ngay wax ni moom sama gaa yi nekk ci ah. atelier yi nañ ko xam. boo jékki-jékkee ñun la yow yaay patron numéro de waaw ba yàgg-yàgg nga jékki-jékki ñu teg fa keneen. ku la supérieur waaw. da ngay dem ba booy boo leen yónnee sax dañuy kii. waaw dootoo doon dara. non non non non non kii da ngay. affaire solo gi mooy dañ quoi maanaam tey. lépp mën na ni ñu mu ne fa mais sur gi mooy rocceeku day dañ naa du fa ne est-ce que jërëjëf gannaaw loolu sax comme ni ko sa waxee léegi dafa mel ni sax loolu yi la lenn ci ñoom euh, dégg ba tax na yuusu nduur euh, mi ñu xamoon ci fekkee ma ci boole ak suñu kart yi duñu ko jox koo xam ne daal lekk xaalis ko fi indi loolu ni la ko waxee moom nag baj baji na Assane ak Zahra Iyane Thiam Euh, daal ñoom nee nañu ku ci nekk ànduloo ci lii nga xam ni moom la président Macky Sall def texte bi sunu bi nag ba ma ko gisee ba ci suba gi nag maa ngi jéem a lijjanti est-ce que dëgg la am du dëgg waaye daal dafa mel ni dëgg la waaw moom daal critiqué na wax na xalaatam que ni daal lii ñu gis ci réew mi daal c'est pas normal doxul baaxul. waaw Youssou Ndour kenn xaaru ci moom loolu. ah kenn xaaru ko ci moom. ndax yaakaar naa ne si biñ ko xamee ba léegi fu réew mi toll rek day génne aw way teg si taabal yi. aw way la xaar waaw moo xam day tëggaat jaay doole bi moo xam nu muy def daal mais daal dana fi dana way jaay doole mi ngi fi kay yow koy déglu ko rek déedéet tëggaat tëggaat gu bees gii leeral ko ba mu leer nañ moomale ko président Macky Sall ni ko adressé naa la way bi dédicacé ko ko bu noppee ñu def ko album yët ko ko pale pale waaw foofu daal la xaar ci moom mais xaar ñu si moom ay texte muy bind daan def fu réew mi toll mu génne aw way bu courant bi coupé mu génne way lépp lu toll mu génne way taxawu askan wi te ba fi mu toll nii mën naa continuer des ak askan wi donte barasti ko woon na ba tànk bi tarxiis bu génnee am na album bu muy génnee jagleel ko président Macky Sall dana ñëwaat day ñëwaat waaw day ñëwaat lépp waaw dana ñëwaat fi mu nekk nii dina ñëwaat kii rek saxaraa kooku ngay wax